mu ni wax dana war fii xam si te usuqin juróomi dëgg usuq saak saak ba lu ko ëpp dana ko fan mu ne wa in bi ardin donte donte ci suuf lañ ko béyee woon it mbéy moom moo mat juróomi dëgg usuq xaraaj yépp boo xam ne ko du galak la ma ne ko loolu lu mu toll mooy suuf soo xam ne boo ca béyee da ngay fay xaraaj daan ci alfun mu di junni usni at ak juróom-benni téeméer min ak usni at rek ak juróom-benni téeméer rek rab ñu di ko firee liibar nga ne ko nag ba tey loolu la si leeraguma rek mooy daal mu ne ni atin téeméer la wa samaaniyatu ak juróom-ñett wu ci doon ak nit dërëm man fii dërëm mooy xëy maam makk yan dërëm yoo xam ne bu di ko def makka dégg nga nga ne ko waaw dërëm boobu ba tey waaw dërëm boobu ba tey man de xaw moom lu muy peese xaar naa ne xaalis la rek xaalis nag moom dañuy xam wës moom soo ko xam xëymaam mu ne kullu képp dërëm boobu la xam suuna juróom fukk lay doon wa xumsa habbatin ak cinquième benn pep min mu tlaq saayiri boo xam ne grain orge la boo xam ne duñ ko tànn muy bëgg na wala bëgg na tuuti ay setti heure moo di orge buñ ko seetee buñ ci tànnee juróom fukki pepp ak cinquième benn pepp buñ ko peesee ak dërëmu màkk boobu lay woon bës moom lay amee nay toll nga ne ko nag loolu nag wax nga ma poids wax nga ma valeur ci lan laa ko jëlee mën la min xabbin moom graine la wa tamrin wala tàndarma ren bi ko waxee ñu bàyyi na lan lan dañu ne ceeb waaw yooyu yëpp graine yooyu wa xab wa tamrin ak tàndarma faqat rek mu naqal mbir muy lu ñu setal nag nga xam ne dañoo dindi yi ci nekk yëpp ba mu set tëj mu qaddar jafaatu ñu nattale itam bu fendee li wàññi ko ci poids bi nga ne ko bu bu bu bu fendiwul mu ne wax dëgg gis fa te seene mu ne donte fendi fendiwul itam ñu nattale fendi ba mu nit ko asuru bi genn wàllu fukkeel bi mooy un vingtième mu ne li ci ñuy génne un vingtième mun la ka zeyti ka zeyti maa niki jiwu zeyt mooy huile da ko huile jiwu xam nga bu ñu waxee huile huile jiw jiw lin rek jiw xanaa dëwlin wax dëwlin dëwlin moom mooy mooy zeyt loo xam daal ci luy sax la génnee bokkul ak li génne ci soow lu ñu wayal ba mu am yeeg yooyu beurre bokkul ak beurre daal zeyt ak ak ak duxni duñ ute mu ni que zeyt ma naka noonu huile la nga xam ne la ko ñel na ko zeytun lu ñuy bay te mu am dañu nekki gerte wala yooyu wasamani waaw wasamani xayri li zeyti wala njëre ko boog jënde ko ci njëgu lu amul jiw wama ak la nga xam ne laay jiffu du fen di mukk wa fuulin loola moom wa fuulin ak fuul xam ñu ko di feew axdara bu wert bi moom itam uñ suqiyeen dem naa nga na ko bi aalatin ak jumtuwaay dañ koy arrosé moom it wencéem ba wa illaa su fekkente nag kenn nangalu ko lu dul asamaan si moo koy arrosé mooy taw fal osuuf si une dixième wala defee si une dixième ndax nañ ko waroon sonne sonne kon suñu borom moo arrosé moom war na am wàll wala wis pouree doonte jëndee foon na sax ak say ko yol ma donte yow li ndox mi jóge ci dex bi di dem nii waa ji ko moom yow da nga ko jënd ci moom pour muy tooyal say tool itam fabuloo sa jubituwaay rek di ko arrosé bu tee rek dixième ngay fay awun fuqa wala dépensé mooy di ale ci moom dañ fekkente ne itam mbay mi dañ cee dépensé léegi daal yaa ko arrosé dixième ngay jënd aleykum salaam jóge ci ah ci jàkk ji ci dex bi waaw comme niin waaw waaw gouvernement bi waaw kooku nag moom daanaka arrosage la ndax bu fekkee ne da ngay fay lu dul nga xam ne gouvernement bi def na ci waaye fan ci lañ waroon a jaayee ndox mi wàññi ko ne wàññi ko duñ xam bu boobaa nag wàllu loolu dana génn waaye daal ndax dex bi ndoxum asamaan see daanaka maanaam ndox mu naturel la daal moo xam ne kenn defu ko ko yàlla ko mu mel ne taw bi rek ndox moomu daanaka moom nga jëfandikoo donte ay frais xam nga wax nañu léegi ne on on fa alayhi day daal di jënd ci kon ci ndox mi nga xam ne fabuloo arrosoir di ko di ko suuxat aleykum salaam waaye nag dépensé nga si kooku itam ba tey du tee au lieu ngay génne asaka weñteen dixième ngay génne aw unfiqa alayhi bi moo tax dégg nga ko rek dégg nga mu ne wa in suqee su fekkee nandale fat la ko bihimaa si ñoom ñaar ci ñaari façon yu nandal yooyu yëpp nga joxe genn wàllu osru ak genn wàllu weñteen boole mafum fa ala hukmayhima mooy kenn ku ci nekk ci atteel waaye yàlla ndax ñu xam la bu yow dana faral ak solo ci gën a bari fekk ne li mu arrosé kat moo gën a bari kon li muy fay ci osru maanaam ci dixième moo ëpp wala bu fekkente nag li nga xam ne kat ndox mee ko taw asamaan see ko taw moo ëpp li muy arrosé ndax daañu tenir compte ci yooyu wala ba tey genn wàllu osru lay génne ndax xalaat li nga xam ne ndox mu asamaan see ko arrosé génne itam genn wàllu wénceem ndax li nga xam ne sonn na ci moo doon arrosé na genn wet gi ndax loolu dañ ko cee seet bu ñuy ëppee daañu ko ëppal ak ak saru daañu notal li gën a bari xilaaf ñu dem de bismillah mu ne watu gomm def na kàppe alqapaani ay muuruur muuruur dañ ko daan wax ci wolof yi mooy xeeti ñebbe yépp dañ ñebe ay lan ci ay ay ci daar yooyu daal façon ñebe yooyu yëpp dañ ko jàppe ne benn xeet la kon soo amee ci biir ñaari dëgg suuf wala ñett am ca bee ñaar dëgg suuf dañ ko boole pour nga génne benn kii pour nga génne asaka bi fekkoon si nag duñ ko boole dañu ne benn bu ci nekk xeet la kan ba benn bu ci nekk bu matul asaka bi ci génne dara mu ne la ci ka xam xin naka xam xeetu boppam la moom wa sha'ir ak xeeti xam yëpp blé wa sha'ir ak sha'ir moo di ord wa sulkin ak sulk ñooñu ñëpp benn bu ci nekk xeetu boppam la waaye ku ci nekk xeetam yi mu doon daañu ko boole wa indi bul daan yi donte bokkul réew yi ñu nekk da nga am ca benn xeet ca Kébémer benn xeet ci Louga benn xeet ca voilà léegi fekkente ne boobu nit yi avant que ñuy jugee rek. gannaaw benn xeet la dañ koy boole mu ne wët mu ne injure andem bayef na ahaduma kon moom ñu wax sax injure andem bayef na ahaduma kenn si ñoom ñaar qabla xasaadil axari ca la jiitu ñu góob keneen kat fa yu damm def na kon te loolu tax daañu tàppee albasati ba ne ca digg ba lahuma jël ci ñoom ñaar ñëpp léegi bi nga xamee ne da nga bay beer bi mu daakat yoon ba mu koy góob nga bay bii ji ko bi mu daakat yoon ba mu koy góob nga bay bële léegi mënuloo bële nga xam ne moom la ñu koon a bay te xëy na moom bi ñu koy bi ñuy ñor ba nga koy góob baye ba mujj ba baye góob doo leen boole waaye bi nga xam ne moom muy ci digg bi mën nga koo booleeg bee te ji nañ ko te fekk kee góobaguñ ko mën nga koo booleeg bee ndax ji nañ bee te fekk mu ngi góob xam nga xasee xëy dammul wasatu lahuma waaye laa awalu moom laa njëkk misaal bu njëkk bi moom mënuloo koo jëmale misaal yi suñ ak jëf mu ni laa déful tàpp ko yooyu la li alasin ci alas alas moom ci bopp loolu na am lay sene bi leen te yi amu fi te ay xeeti ci la mbay la wala xabum tayilum bil yaman bil yaman la am bil burra mu ni kon blé doo ko boole boo bayee blé bay alas benn mutu ci asaka doo leen boole natt ko nag pour bu mbooloo mu matu asaka nga di ko asakaal déedéet benn bu ci matul asaka rek doo ko asakaal ndax duñu benn xeet wa dox ni naka noonu dugub dugub ñu leen dugub yi ceeb wa durotin ak màkk mooy mboq wa origine ak ceeb mu ni wax yi ñoom ñëpp aj naa suñu ay xeet lañu benn bokk sama am ci na xeet la wa simsim ak simsim wa bisirul fujli ak doomu fujli ñu ñu wax bujanga di leen wax berse berse na fëstoq li daal ne ñoom fëstoqul abidu lañ ko wal xortum ka zeytuun moom it naka zeytuun yooyu yëpp benn bu ci nekk kiwu boppam la xeetu boppam la mu ne waaye laal kattaani doomu coton maanaam wëttéen waaw koraay doomu wëttéen koraay kenn du ko dajal di ko asakaal est-ce que daañu ko lekk yaay yi dañu daañu ko lekk ñu koy xamu ni ñu koy tuddee tudd làkk koraay waaw mu ni waxu si ba def na kontewaale peshurul ursi tuqi ceeb ceeb bi bala nga koy bojj boo dee peese da ngay peese waale kii bi de tëgnu bi waaw paay bi ceeb bi boo ko dee peese wala nga di ko natt doo ko bojj ba mu set de ko bojj da ngay calculer waale loolu aussi ba fujri wala alas na ko noonu alas wa da nga compter waale maa nga xam ne toujours jot a sarxeef ne bi ci moom li nga sarxewoon booy sarxe na nga natt pot ba xam li nga sarxe nu mu toll booy génne asaka nga nattaale ko nga bàyyi ci xel wasta ajara ak li nga xam ne daf koo fayee ci leen liggéey ci tool bi xattan mbir mu di ay takk ñu ki tey nit ki daf la góobal wala mu liggéeyal daal ci tool bi nga wut sayu dugub sayu mbool ak yooyu ah waaw waat nañ ko seetal yooyu ñaare waaw ndegam kaay bi nga jox nit ki ngay calculer wala ci ne loolu waaw waaw ah kooku ñoom ñoo ko waroon def bu la neexee nga laaj leen sa sa sa coono parce que yow génne nga asaka yi ba pare li ñu la santoon nga jox leen ko léegi seen moomeel la nekk gannaaw dañ ne la da ngay compter waale cuq yi nga natt ak cuq yi muy li nga xam ne asaka war na ci nga génne ci li nga xam ne moom la ci war a génne nga dem nag pour ñoom ñun xamuñu ko ndax jox nga leen ko ba noppi moomatoo ko léegi yow yaa xam nañ koy dindee bu fekkee ne am nga xolu dimbali leen ci leen leen ko beesal leen ko alhamdulilah bu fekkente ne nag sa coono danga leen koy laaj ñoom ñoo ko war a génne fay la bu ñu amee dara ñu jamono wax nañ leen du dëgg tan ay ma ko ay ma ko dugal ko voilà gis nga kii nee na amul mafhum xattan jooju mu wax soxlawul ay takk ak duñ ko dee jóor ak yëpp gannaaw da nga ko fayee ci doon liggéey rek même bu fekkoon da nga ko def jóor yu mag it moom ñooyam rek da nga ko calculer rek amul mafhum bu fekkee ne bu fekkee ne du wàññi dara ci li nga waroon a génne asaka day du ci wàññi dara waaye dañ laa wax yi nga xam ne xam nga bu fekkente ne léegi da nga dindi cuq yooyu yëpp mën na bañ a matati asaka bu fekkee ne dindee goo ko mu mat asaka nga dindi ci li nga war a dindi ba noppi li nga dindi ba noppi bu la neexee nga file ko di nga bojj ko jox leen ko caay caay fay fay waat bajj bi li nga yow asaka ji bi fi mu la waree yow ma xasaa ji bis bi nga ko góobee filee goo ko bojje goo ko coqalee goo ko yëpp a ngi ci coqali a ngi foofu lay waree ci yow léegi moo tax ne au soq mu ngi mel nekk ay sendal nga ngi ci sendal nga natt ko noonu soo ko nattee ba mat juróom léegi asaka war na ci boo génnee asaka ji nag léegi bu fekkee ne yow sa bopp li nga moom sooy boo nga fab sa xaalis kii la ko coqalu ko xaw ma coq xaw ma kii la ko bojjlu ko bo li nga génne muy asaka nga di ko jox ñooñu soo leen ko bojjalee sa affaire nga am ci benn tuyaaba bu la neexee waaye bu ngi aju ci yow kenn du ko àtte waral la waaw waaw waaw problème lay doon nga bëgg la si déedéet du ci génn du ci génn de buñ ci génn ñoom nga koy defal waaye ñoom duggagul seen moomeel joxe ko fu kenn waaw sant gis nga fi mu nekk yow boo ko defee ba fay sa bopp ba fay li mbojjul bi nga ko mbojjul ba noppi yow léegi loolu nga xam ne yaa ko def génnee nga asaka ji joxagoo leen ko kon boo ci génnee loolu mu manqué da nga war a na ñoo wëcce ci waaw waaw waaw waaw kañ saa yu moom saa yu moom bu gisee ne eh, dana encombrant pour mu mu bañ ko bojj bi ñu affaire bi ñu noonu mu réew mi di ko indi dina ci am problème moom bu bojjul ko bu koy bojjul moom daf koy fay ci alal affaire bi waaw waaw dina rafet kon mu ni kon تزيد لو كنت خشبة تشرب والتاجر قتل لا لا أكلوا دابة واي لا بتكون أنت معلم أكلوا دابة في درسها في وقت بوجه xam nga ñoom ñu ñuy boje ay baxlaat yooyu la ñuy dañ koy kii rek ñu ciy jaar noonu ba fekk yi day loolu bu fekkee ne léeg-léeg mu ne jàpp lekk doo ci compté wàllu loolu moom li ci def rek ngay nag bu ci affaire waaye mu ne wala ñu bugg war gi nag day am xam nga xam ne sàrt yu jóg ci affaire ci jur gi yooyu loolu jóg ci fekkee ci mbay mi dana am bi ifraatil xaj bi ci fen bi pepp gi su ko defee sendee rek wax nañ léegi war nañ ko ci génn waxtu bi samari ak neexu meññan su fekkee ne tàndarma ji wala mën nañ ko yàq mu neex rek dañ ci tooyee comme nañu wax albalax mu ni flaché de lenn ala waarisin di war aji doon qablahuma ci lu jiitu al ifraakul xaj bi ak tiibu samari fekkente ne léegi doon na ko ci su fekk meññet ni neexagul kenn mënagu ko lekk noonu pepp yi sendeegul dara du ko war maanaam pour génne asaka bi koo xam ne lam yasir mu jullohoo ñeel ko nisaabul nisaab ala waarisin qablahuma lam yasir lam yasir lahoo nisaabul fekkente ne amul lu mat nisaab si bu ñu defee naxale bi soobe mu ñor wal zakaatu asaka alal baa'i war na aji jaay ji ba dahuma ca gannaaw seen njëg tat bi ak neexu maanaam ñoru meññet bi léegi ki ko jaay moo war a génne asaka ko jaay bu ñu ñëw fekk tool bi ñor na ba pare comme ni ñuy def mango yow yaay daggal sa bopp wala tàndarma yi man maa war a génne asaka rek bu ñu seetee ñu war a doon ñu xam ne kii mat na xam si te uso bu seet li ci war xirsan matale nga génne ko waaye ji moom jaay nga ko waaye yow yaa koy asakal waaw waaw waaw nga ne ko alal bàyyi moom moo ki ko jaay moom moom moom fu ñu mën a jaar rek moom mooy génn asaka mu la illa an yu'dima dara boo ko jëndee amul dara kon fa alal mustari al aji jaay ji amul dara kon ko jënd mooy asaka mu ne wàll fakati gunna alal muusa ñeel na ku ñu jéem lafoo ñeel ko al muayyan kadu ku ñu wàññi rek ne diw sàngam nag ma ko doxal nangam diw loola bu ci asaka waree moom maanaam dépense ya moom la war maanaam mooy arrosé mooy bay ak loolu yëpp moo koy def asaka bi kenn du ko ko defal maanaam bu ñu ne nañ ko génne ci alal yi ki ko dénk ci moomoon alalam te dénkaane nañ ma ko joxal ñu ko ci génne baax na ko ah ah mu ne waaw fekkee ne yorul dara waaw ak jaay mën na ko fay léegi mën na jëm bit ta gannaaw war na bu ñoree rek mu war fekk jaay na ko ba noppi asaka war ci bu fekkente ni daf ko jaay mu jëm bit te asaka bi léegi saa yi bi ñëw na dañ ko war a génne aji aji ki ko jënd bu ko defee biñ koy jaay dañ ciy calculer waale bi dana génne asaka ji boo jëndoon oto boo xam ne fayul vignette assuré wul daañ ci génne loolu ndax da ngay fay assurance da ngay fay vignette ci jub bi da nga ko ci calculer waale waaye nag yow yaa am yow mi ko jënd yaa am coono di ko natt di génne di joxe ndax bu saa yi ñëwee waaw ah jaay moom bu ñu koy def moom lépp la ñuy leeral lu dul lool rek day daal di araam wala du fasu dégg nga suñuy waaw ah déedéet non ça waaw. dañ koy toppandoo ci ñu xamul ndax njëriñ imam Malik moom dara du ko moom Abu Hanifa moom li ma leen waxoon rek mbirum xadis yooyu ci xadis dafa wóor ñu ne taq yi ñooy di wóor mu ngi mel ne ñoom yaa ngi dem ci gerte bi di jéem a nal ak di ràkkal ba fekk di bu ñu ràkkal ba mu mat gis nga fi mu ne xadis dana wér beneen xadis ñëw dindi ko te yëguloo ci dara moo tax boo ubbi téere xadis rek ma xadis bi mu ci fekk donte wóor na leen wér na it waruloo koo dal di jëfandikoo benn am na xadis bu ko def taxsiis wala xadis bu ko yëkkati carrément wala xadis bu ñëw wane ne lii kat ay jamono ay circonstances rek a taxoon muy wax waaye noonu imam Malik ak limaamu Ahmad yi yëpp d'accord nañ ci ne gannaaw takkusaan naafila amul gannaaw takkusaan naafila amul damay wax ne sharia ci ñaar fukki at ak ñett ñu ngi ko établir ay xew-xew yu bari daf cee am ay changement yu bari am ci loo ci gis nag fañ tolloon bañ di ko def na nga ko xam ndax xam dara du ne ko wala déet moo tax toujours ma dina wax naan na ngeen di jàng usul na ngeen jàng usulu fiqh lu farata laazim la mënul ñàkk ndax mooy tax nga xam atte yu bari misaal naa fi ay ñett yoon ak ñeent leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam danga def dara du expliquer lu tax mu def ko bu ñu fa jógee ku nekk interprété misaal naa ko fi ay yoon ci néew boobu misaal naa ko ci bi mu jullee ñaari rakkaay armal yi pour daal di wootoo armalam julli ñaari rakkaay dem wëti ñëpp wax naa ko fi ay yoon yoo xam ne dafay wane ne yonent bi mas na def lii mas naa def lii lu tax nag ndax lu mujj a def ak lii lu taxoon mu def ko ci mbirum xabd ak sëddlu misaal naa ko ba tay boo gisee ulama yi ñu bari ay wuute benn xadis bi dana jot si kii te jotul kee wala mu jot kii waaye doy loowu ko am na lu tax xadis yu bari saxaaba yi wacc nañ leen Fatmatu bintu Qays mbokk Baxaaj ibnu Qays Sidna Omar laaj na ndax ku ñu wacc war nañ koo jox dund ba idda ji jeex Fatmatu bintu Qays ne ko def nañ ma ko te kenn joxuma dara Seydina Aysa ne ko ay ragalal yàlla Seydina Omar taw ba mu yàgg mu ne ah man daal du ma wàcc lu ma xamoon ci téere yàlla bi ak ci xaddis bi ngir wax jigéen joo xam ne xaw ma li wax dëgg la wala du dëgg dañ caa mujj dellu siwaat wala maa yi buñ gëstu ba gëstuwaat ba gëstu ba seet xam nañ li xew saxaaba yi xalifu daa daana ñu ko wax dara mu ne kii yow foo jëlee lii mu ne mas naa ànd ak yonente bi sallallahu wala toog naa ci béréb mu ne nangam nangam mu ne ko indil ku la ñaareel bu amul ku ko ñaareel xadis ba mën na fekk wér na sax waaye amul ku ko ñaareel kooku teg ko fale am keneen koo xam ne comme ko dee moom gis na keneen ku ko ku ko saxal muy ñaar mu moom ñaar ñooñu mu yëg ko moom dal di saxal xadis bi ma sharia daal dafa amul ak dégg bi dafa laaj wér lu bari jaar ci bari wante xam naa baati arab yi rek ubbi naa téere sàngam gis naa ci nangam ma ñëw daal di fuddee dara jëf ngir jàpp-jàpp yu bëri nga teg ci benn mën rek nga jàpp ci da ko war a.
waaw moo gën a rafet. moo gën a rafet waral ñu ko kenn waaye moo gën a rafet. ndax ñoom ñëpp kenn ku ci nekk def nga sa këm ijtihaad la nga mën lépp ba dëgër ca ku ci nekk def nga la nga mën lépp ci ijtihaad ba fa nga àgg la la gën a doy nga jàpp ca ñoom du ulama yi du ca génne xadis bu ne jëfe nañ ko de wala jàpp nañ ca imam malik sool nañu gannaawam juróom benni kees yu fees ak xadis yoo xam ne muskee nekk di benn muskee waxtaan benn xadis dafa am ñu ñu ko jagleel rek ñi nga xam ne daanaka du ñu doon gan fenn muy xalifa bi nga xam ne réew mépp la yilif muy amir muminina ma amir muminina boo xam ne ci béréb rek mais comme sultaan de wante xalifa bi nga xam ne ci turam la ñuy xutba fu mu dem sopp nañ sax ñu jiital ko ci dépense yëpp nag alal mu taaloo war na ki nga xam ne moom la ñu dénk mbir mi ne sama gannaaw boo ci liggéey ñu ma ko defal nangam al mu ay yéen kër ku ñu ràññeel li ñu diw sàngam nañ ko jox nangam ràññeel nañ ko diw sàngam ci suñ biir léegi léegi gannaaw yow ma xasaa di dund la asaka ji di war ci jëndal nit fare yi fi am arrosage beeg dinaa beeg yooyu yëpp li nga xam ne moom la ñu ràññeel moo ko moom léegi moom lañ ko dénk moom la war fekkee ne def nañ ko def nañ yooyu yëpp it ñu génne ko ci ñu koy jox daf koy jël xanaa di julli ëmb genn wàll su ma genn wàll tool bii nañ ko defal diw sàngam diw sàngam moomu bi nga xamee ne nit ki gaañu na nga xam ne booba la ko soog a gaañu moom diggante boobu bu bañ koy joxe asaka lépp lépp frais bi ñu ci def ci mbay moomu moom la wax waaye daal masaakin ci tegg miskin yi sama tool bii wala sama nangam bii dénk naa ko nañ ko jox dénkaane naa dañ ko jox miskin yi dara du leen ci wax aw kay lii wala muy dañ ciy nag nangami sendal wala nangami àndaat joxal ma diw te fa alal ma ñu ci fa dépense yëpp alal mayit yi war na aji day dañu nga xam ne moom moomoon alalam te dénka mu ne wa innama yu raxasu yu raxasu ngeen bind de waaw waaw xañ loolu danañ mën a jël xañ wa innama yu xar xañ mu ne wa sara bi noonu de xañ mooy ñu borom risaala wax nga defu fiha ànd ak nattale boo yéen may xor su ko def na nattale ak tamaru tàndarba léegi bu fekkee ne waxtu wi génn asaka gi jot na ñor na neex na dañuy seet tàndarma bi à peu près buñ ko wattoon ñu seet koo xam ne kii mën na taxriis taxriis nag à peu près daal approximation uti leen xarraasuun indi gën a rabat xarraas xeex si daal mooy approximation rek nattali daal dañuy war kon gendarme ji léegi ñu ngi ci kaw bopp garab yi xam nga foofu mën nañ koo jaay bu wëccee rek dañ ci neex léegi pour nit mën a génne asaka bi ki nga xam ne moo ko bayoon kon ba mu neex moom la war léegi bu ko dee nattale woo ay nit ñu ñëw seet koo xam ne kii ku mën ne taxarit la xarraas la ñu seet tàngal bi après nanga la war a toll ci lap ndax na benn usuk wala benn usuk wala yooyu waaw duñ ko wattoon wala inab bu naka noonu itam inab raisin kañ la mu ne isa xàll waxtu xam ne dagan na bay uxaa jaayam mu dem na ba toll ci ñor xam ne daal waaye nag biñ ko bi ñuy am yàkkamti googu ba di ko nattale di ko def xib si boobu na fekk waxtala fat te wuute xaajatu ahliha aajoy ña ko moom ñii ne nan bàyyi ba mu wow ñu soog koy wat ñii ne waaye man dama yàkkam si ñu dagg ñii ne sax duñ ko wat sax nag nañ ko jaay noonu ci kilee wuute yi daal ñii aajo woon nañ léegi ñii aajo wooguñ léegi amuñ fuñ koy def ñaaw dafa tooy di ko ci weerante ñu wuute daal ay aajo kii ne nii kii ne nii nga xam ne dañ leen bëgg a séddale léegi wala ñu bëgg a génne at bi léegi daal di koy def xib bu ñu ko def nag nax la tan nax la tan par benn tàndarma waaye duñ seet ne tool bi nangam la war a toll rek ñu ne ci daal war na nag ñeent ci dabi u suq déedéet dañu seet tàndarma ci ab bërëb war a ngir séeréer bi gën a néew bis xaati naqsiha ànd ak ñu yootal la ca wàññi ko buñ seetee ne dana am buñ bu wowee ni mu waroon a toll dana ko manqué dañ koy boole waale ci nattale bi waaye la saqatiha la duñu duñu bàyyiwaale xel de saqatiha maanaam yu bon yi suuf di wadd ak yi yolox ak yi nga xam ne ngelaw yëpp ñu kenn xamul yi daf koy waddal duñ ci tenir compte mu ne wakafaa doyet na sax alwaaxi bi kenn rek kenn rek boo xam ne xam nañ ne moom mën na ko bu baax te dina doy nga xam xam-xamam xam ne kii daal ku mën def taxrit la da nga xam ne moom ñaari daal njuumteem dana nekk luñ mën a jéggalee lu néeg yi saabal ñu bàyyi ko ñu jox ko moom kenn ci ñu bàyyi ko mu ci leen mu ne way nax talafoo fekkee ne ñoom dañoo woote ci ñëw ne ci daal ci ñaar ci dañu usu ci na déedéet ko juróom ñett wala ci ñëw ne ko juróom ñeent ñu teg fal araf ci d'après mu gën a xam rek ñu topp ay wax wa illaa fekkee ne amul koo xam ne moom la ñu gën a xam nga xam ne daal xamuñu ko wala bu ci amee xamuñu ko daal kon fa min kulli fa min kulli fa daañu jàpp min kulli ci képp ci way nattale ñi ñu dina ab xaaj bii tàngal na ñu jàpp ci xalaat bi wala ñaar tàngal ñu jàpp ci xalaat bi ñaar ñu jàpp ci xalaat bi ñaar ñu ñu seet daal bii tàngal nañ toll ko ku nekk ñu seet jàpp jàpp ci xalaat mu ne wa in asabat fu ndem jot na ko in asabat ndem jot na mbay bu tubalum an ndem jot na jaay xasin jaay fu mbay ndem jot na mbay jaay xasin jaay oo su bi rek xale may xat xale maa lay def ko maanaam bu fekkente ne dafa jot jot ci jëli am grêle yuur bi loolu nga xam ne ñu ñuy taw yuur daal di waddal ñu ci yàq yi wala xam ne dafa tàkk wala leneen loo xam ne daal dafay benn jaay daal glace bi ñëw suul ko wala yooyu daal mu ne loolu moom daañu ko calculé waale dañ koy dañ koy calculé xalamaale ci rek bu seet buñ ko xalaamee buñ ko xalamee li des bu matee asaka boo xamee ni loo xam ne jógewul ci jëfi nit ki lu dul dafa jóge ci suñu borom moo ko indi ci nature bi daal mu yàq di supplante boo ko jaay da nga koy supplante doo jaay nit ka loola dañ koy dañ koy delloo li fekkee ne itam dafa def noonu ci ñuy war a natt asaka dañ ciy xalaat loolu ñu yàq ñu lu ci des ñu génne ko asaka wayin saara su fekkoon ne dafa dolli ko ala taxriisi aarifin mu ëpp daal li nga xam ne ki xam ki gën a ki natt ne moo gën a xam ni mu ko à peu près ñu gis ne buñ ko watee dina ëpp ne ko kooku fal ahab bu la gën a sopp al ixraaju loola ñu seet ko génne ca asaka ci li gën a sopp googu nag imam Maalik defe naa moo ko wax al imam Maalik mu ne waxal yàlla mu ndax ala zahirihi dañ koy teg ci ni mu ko waxee ci saahiru baat bi al ahabu li gën a sopp rek te kon nekkul lu war awil wujub wala moom kay war gi la ñuy xalam imam Malik def na la gën a sopp waaye mu ngi ci jublu la gën a war li war ndax mu ne taawilan am nañ si ñaari jëm tam mu ne waxi sa jàppee fat na min al xab bi ci graine kay fa kaana naka la nekk rek masalan ni mu ni ñu ko fekkee rek ñuy génne asaka ji moo xam dafa njaxas am lu ñaaw ak lu rafet wala li rafet ëpp wala li ñaaw ëpp dañu nax rek noonu rek ñu nga kat tamri naka noonu la tàndarma naw an mbir mu di benn xeet aw naw ay wala ñaari xeet maanaam dafa am tamri ak rotab mais kon ñaari xeet rek la wala lépp di rotab wala lépp tamr tàndarma ju wow ji tàndarma ju kii ji mooy rox bi mooy nappaa jooju tooy jooju le léegi kon ñu ne ñaari xeet jubluwuñ ci xeet yi ñuy ber ci asaka de waaye dañoo nuróowu rek waaw waaw waaw waaw xam ne mën nañ ko boole léegi dañ koy boole génne asaka wa illaa fekkee nag ëpp na ñaari xeet fa min awsatiha maanaam bii moo gën a baax bii bii moo gën a bon bii ci des nekk ci digg bi ñu seet bi ci digg bi bañ a di natt asaka ci bëgg la gën a bon bañ a natt asaka ci la gën a bon bu dee nag ñaar xeet rek la ñu fab ci bu nekk
bu dee nag ñetti xeet la nga xam ne bu rafet trop ak bu ñaaw trop ak bu yem rafet gi dañ koy génnee ci bi yem buñ jëlee ci bi gën a rafet lor la buñ jëlee ci bi gën a ñaaw itam daañu la lor ci baatin maanaam li li la war xàq ji la yàlla tegoon mataloo ko defaloo ko waaw voilà ay xees saa yi du jàpp li di gën a du jàpp lu gën a bon du jàpp mu leen